le cas de Ousmane Sonko ak ki nga xamante moom mooy Adji Sarr ban maanaam jàngat non Sonko dañ koo war a wax dëgg. Sonko lañ war a dañ ko war a wax dëgg parce man xaw ma Adji Sarr Adji Sarr xaw ma ko mais gis ngeen nit bu fekkee ni daf laa war a jiite ëllëg dañ koy teg ci yoon. mais Ous waaw mu moytu yenn yi Sonko ku ne xam na ni Sénégal salon de massage yi fi nekk ay ay ay cagale salon de massage yu caga moo fi am ay massage plus moo fa am boo waxee dañ naan la massage lii massage les massage ñooñu amuñu ay këyit Ousmane Sonko bul fa demati même boo feebaree bul fa dem. yow comme da ngaa war a nekk président ëllëg ñun waruñoo toog ñu naan Sénégal daa am ay président caga ak ay président nangam loolu warul am est-ce que comprendre nga. ñaareel ba moom tamit muy wax population bi dëgg parce que gis naa ko mu ni moom bi mu njëkkee dem ensemble Ousmane Sonko gis naa ko bi mu njëkkee dem ensemble mu ni bi mu njëkkee dem ensemble mu ni. moom dañ koy jox bon bon bi xawma ma ban kii wu français nekk ci mu ni du ko jël nañ koy jox boo xam ne ni ay sénégalais ñoo ko moom loolu c'est bien et beau solidarité la mais tamit na wax sénégalais yi dëgg parce que sénégalais yi da leen di jox fii marché ñu war a liggéey duñu liggéey lekk xaalis bi est-ce que comprendre nga na wax sénégalais yi ñu bàyyi tiriande bi ñuy tiriande Ousmane Sonko na ko wax bu fekkee dafa bëgg a jiitu réew parce que ñii di la xeexal ni bu ëllëgee dañoo yaakaar ni ñi ci dëng dañoo yaakaar ni boo toogee ñoom seen dëngate da nga leen koy nëbbal bu ëllëgee loolay indi sa problème ak ñoom ñun suñu tali bi nekk suñu ko ñaari voie yëpp la ñu baare oto dematul oto dikkatul te dañoo tëj di raay pour nga dugg fa problème la te marché bi ki ñu ko jox sénégalais la sénégalais boo ko joxee marché sat du egg mu lekk ko nga jox ko marché kii mu lekk ko nañ jub non nañ jub Sonko na leen wax loolu loolu la leen war a wax de ñoom nañ wax sonkoo dëgg sonkoo na leen wax dëgg pour réew mi dëgg mën fee dox mais bul bañ nit rek jëlee ko fi après nga ni dama ko fee jëlee jële mer parce que nee nañ laay wadd looloo taxoon ñu jëlee ko fi indi Macky Sall Macky Sall bi ñu ko indee mu def lii lu lu ñu wóor ki xamuñu dañoo am yaakaar ci moom mais lu ñu wóor ki ni moom du def lu gën a pire loolu mais quand usmaan Sonko am nga ci moom yaakaar. man ci sam bopp laa am yaakaar man man Sénégal yaakaaruma fi kenn man yaakaaruma kenn Sénégal Ousmane Sonko bu xëyoon suba ñëwaat nekk président lu mu def du ma bett parce que loolu suñu jikko la ñun sénégalais ñun bu ñu soxlaa du ñu wax dëgg bu ñu soxlaa dañuy maslaa ba am du ñu bëgg a am man Sénégal yaakaaruma kenn. man tey sama xarit bi may àndal ak sama jabar ji ma am ak sama gel bi may génnal la ku ma mënti woo ku ma lu ma nit mënti def du ma bett fi mu toll nii. ñu ñëw ci li nga xamante ne moom mooy maanaam tolluwaay làmb ji rek du mën a ñàkk tey est-ce que tamit ñun maanaam waruñoo dépassé diw feebar na dañ koy ketal. waaye bañ ci waree jugee dafa yàgg loolu laa lay wax loolu bokk na ci contexte yi ñuy kaas mbër day dagg assurance chaque année mais assurance bi du ko assuré. assurance bi du la assuré man gaañu naa ci làmb lii ci làmb laa ko jëlee jubal seete woo direct. sa combat ñaas ñaas. ci laa ko jugee. combat bu métti ñu bëre ba pare ma dem CTO jubal direct bàyyi fa sama licence ñu ñëw bind may faju ñu naan lii ba dem jot ma war a jël sama licence ñu ni ma nii da ngay fay ma bàyyi fa licence bi te ma fa bàyyoon sama quarante tamit dama laa ko fay bàyyi licence bi dem wuti beneen licence. parce que CNG moom moo chargé woo loolu mais doxuñu ci loolu mais loolu kan moo koy kaas mais mbir yu mag yi am voix ñoom ñoo war a kaas loolu. yow kan mooy sa manager. non man Matam Ndiaye mooy sama manager. mais loolu pour man rôle ménager non ménager yi wax naa la ko nee naa leen ñoom ci seen. waa seen pour cent rek. non ñoom ci seen dangay am fii bëri na mbër yoo xam ne ménager yi xamuñu fan lañ dëkk. seen yoon nekku ci yow mbër am ñu jox mbër ay bologu billet mbër mi di ko jaay mbër mi di jaay bolog bi ba accidenté ba ki ko doon jaayal billet yi accidenté mbër mi ñëw wax ko promoteur promoteur bi ni ko da nga koy bëreel mu dem wax ko ménager bi ménager bi ni ko fay ko xaalisam te da nga koy bëreel kooku nekk dans le coma. ba kooku noonu la deewee mu ñëwaat wax ko promoteur promoteur bi ne danga koy bëre mais ça c'est vilain loolu dafa ñaaw est-ce nga mais ñun ñoo war a ñun ñoo war a booloo nekk benn parce que munuñu mënuñu mënuñu nekk ñi ñoo xam ne ñun ñoo téye Sénégal stress buy ci mbër lay deñee est-ce nga mais ñun suñu conscience la ñuy insulté ñun dañuy saaga chaque jour suñu suñu intelligence mbër du dara mbër du lii mbër warul def lii mbër warul def le mais dafa war a bokk ci nit ñi tey Balla Gaye war na am émission bu muy def ci télé Modou Lo am war na am émission Eumeu Sène keneen ak leneen ñoo yem ci làmb kase tey ñoom ñi ngi nekk ci yeneen business yu bokkul ak làmb di jënd ay kër di jaay di jënd ay oto di jaay di def leneen ak leneen mais pour pourquoi mënuñoo conscientiser nit ñi parce que ñoom ay nit lañ yoo xam ne dañoo conscient mais ñoom ñoo nekk au devant li may wax nii ñoom ñoo ko waroon a wax ñoo waroon a génn def ko waaw. barki alxuraan taay dañ ci te laa la wax de nga mu fayee ko 150 millions. ba pare niveau mbër gën a yokk. moom yàlla moo ko c'est que dafa am charisme. tey mbër bu bàyyee salte bàyyi di def yëfu dof wala leneen ak leneen Tyson la waaw. noonu la demee ñun dañoo war a. mais sa diggante ak Baara man damaa am envie fooyee ponkal j'ai envie de fooyee ponkal Baara Ndiaye ragal la. moom laadum la tey pël pël. waaw mais laadum la dëgg la laa laadum la de dëgg la tamit man pël pël laa. mais am na laadum yoo xam ne dañoo manqué matuñu tudd matuñu tabaski man nag pël pël bu ma tudd laa mat tabaski bu ñëwee barki sëñ maama dama koy foyee comme liir Baara Ndiaye. waaw man bég naa ci yéen maa ngi nuyu ñëpp comme d'habitude salle bii ngeen ma fekk nii muy top 5 fitness waa gym bi ñii ci kaw ñii ci suuf maa ngi bégee ñëpp waaw di wax li ma doon wax lépp juste que nii pour lu ñu lu ñu war a xeex la quoi nañ jàppale mbër yu ndaw yi nañ jàppale mbër yu ndaw yi ñu nekk ci nguur gi tamit nañu xam ne ñun ñoo leen fal dëkk bi metti na nit ñi pour ñu am lu ñu lekk wala lu ñu naan problème la ñu dëkk ci banlieue bi sonn nañ ngeen jël alalu réew mi di lekk loolu rafetul man de ku ci lekk sama alal bu keroog yomal même boo dee fii du ma lay ñaanal yàlla na la yàlla yërëm bu ñu dajee di ma fay keroog yomal xiyaam man lool laa am lu ma lay wax maa ngi bëggee ñëpp jaayef Sénégal 24 ci kaw ci kanam